nga nekk mécanicien fii ci boori stade bi waaw jamono ji nag ñu gis ne feebar bi ñu bëri dañoo toog seen kër yi yéen seen liggéey nu muy demee est-ce que mi ngi dox wala comme avant. suñu liggéey dans instant yii dafay ça fait 15 xam ne liggéey bu toxatul quoi ci client yi dañuy ragal ñëw xam nga en même dem ci client tam xam nga lu ñu ñëw ñëwatuñu noonu quoi bu baax a baax. nga jàpp ne feebar moo ko war. waaw feebar bi feebar bi moo moo ko waral ah. parce que bu loon feebar moom tout temps moom xam liggéey bi day dox moom. waaw mais xam nga feebaru moom daanaka xam nga daanaka ngelaw la man mun naa ko am sax ci laayam sax mun na ko am mais kenn euh, mais kenn xamul daal waaw. mais est-ce que yéen seen côté liggéey yéen a ngi jël ay disposition parce que comme ci comme fii da ngeen di regrouper wu est-ce que yéen a ngi jël ay dispositions ci côté cet gi ñuy digleeg yooyu. non noo noo non non non non franchement franchement parce que xam nga feebaru moom daanaka moom bloc lay lay lay bañ bloc lay bañ mais xamuñu xamuñu xamuñu suñu liggéey tout le temps dañuy jaxasoo. dañuy jox sa client dañuy jox sa ak apprenti yi xam moom daal ñun daal yàlla rek moo ñu aar daal. est-ce que amu leen ci masque yi parce que pratiquement gisuma ngeen sol. non franchement man moom day moom dëyu moom amoon naa si masque yi mais pour l'instant nii franchement moom jël ma jël ma si masque yi quoi waaw. gel yi nag am ngeen ci gel yi. dañuy digle raxas. waaw gel yi moom man su may xëy sama soxna daf may iblisé may def gel. mais su ma ñëwee sur terrain du ma am du ma am temps pour jël gel parce que tout le temps maa ngi ci mouvement maa ngi waaw man si man si man si liggéey bi quoi. Ibrahima ñu ngi lay gërëm. waaw ñu lay sant bu baax a baax. ñu fekk la fii ci boori stade bi ngay liggéey euh, mécanicien euh, seen liggéey bi nu muy demee fii. liggéey fii daal moom doy na trop trop trop yi liggéey amatul fii nii nit ñi sonn nañ ndax kenn mënatul liggéey chauffeur taxi sax pour na am liggéey normal ni sax yombut. lan moo war a liggéey amatul. ah feebar bi ni ñu dégg nii nee nañ dugg na fii ngelaw lay doon daal comme sa nit ñi daal feebar doy na waar trop ndax waaw. di moom di yoon Macky Sall su teeloon tëj frontière bu yàgg feebar du demee nii dañoo waroon teel a sàmm ku nekk sàmm sa bopp xam nooy dox ak nooy defee waaw. su ma la déggee danga nga euh, am ngeen ko ci feebar bi daal. waaw tiitaange moom am nañ ko si feebar trop waaw. feebar moom suñ sañoon moom daal dëgg-dëgg moom ñu jéemoon li ñuy def daal ba feebar bi génn fii nii daal ñu mën a ne li ñuy def. ci wàllu cet dafa am lu gars yi di digle maanaam di raxasu euh, di moytu ndaje yi est-ce que yéen fii yéen a ngi koy waaw fii nii moom tout temps moom bool añ sax ñoo koy bokk suku lekk normal waaw ñun moom yooyu moom lii rek café Touba sax am na ñoom lañ koy bokkoo fii nii si gaara bi daal waaw. ñu daal teg loxo ci jël yëpp teg ko ci loxo yàlla daal liggéey. waaw lépp daal si loxo yàlla lañ ko teg rek waaw dañ yàlla moo ñu sàmm daal ñu xool nañ lii rek ñu sàmm suñu bopp ku nekk soo génnee ba naan rek wàcc raxasu ba door dem ñibbi sans sa yére dem ñibbi. mais gisoo ne da ngeen war a moytu tuuti tamit ci di raxasu di yor seen gel gelu bopp gi. waaw meetu moom war nañ kaa def war nañoo meetu bu baax suñu bopp waaw gel yeeg lépp war nañ kaa meetu ñu xool ku nekk baraam sooy génn sa kër sax na raxasoo pare sooy ñibbi na raxasuwaat ba set raxasoo ak eau de door dem ñibbi waaw se xool nooy toogee ak nooy liwee soo munee wàcc sax soo wàccee ba sangu ba toog na toog sa kër bañ a génn bañ a dem fenn loolu ngay digal gaay yi. loolu laa digal gaay yi daal laa moom lu ma siy wax.